yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. Moussaïlamatal Kassab Diagne da ngay dem laaj yi le président Sadi Carnot mi doonoon le président de la république bu France en 1887 bi sëriñ bi sañcee Daaru Salaam ba ca suba ba ca déwén sa moom moo faloon. le gouverneur Clément Thomas mi ñëwoon Touba bi ko sëñ bi sance en 1888 ba ca déwén sa te kalaame yi bari mu ñëw ni Serigne Touba tasaareel taalibe yi kenn ku nekk dellu fa mu jóge woon ba muy dem dafa jël ay téere arab yu bari jënd ko yóbbu ko Serigne Touba ngir ñu ko ko neexale ba sëriñ bi gàntalee loolee mu wax moo joxe woon ndigal ni fu ab murit nekk ci canton wala ab province nañ ko gund xataal ba sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye ñoom dañoo muccoon génne leen njàmbur mooy président France bi ñu njëkk a te fekk mu nekk en exercice France benn président la ma a am bopp bi muy doon président lañ ko rey mooy Sadu Carnot moomu ko ko wuutoon en 1890 di Félix Faure moo tege woon mbiri sëriñ bi moo génne sëriñ bi Sénégal ci ndigalam ngir yóbbu ko Gabon ba Mayumba mhm. en 1894 la falu woon waaye fan la mujj soxna si jàmbur la dem jëli indi ko ci Élysée mooy dalu président France muy pale président France indi fa soxna si jàmbur di ko tëddee ca kaw soxna sa la faatoo ndax dafa naanoon li ñuy wax léegi Viagra pour am kattan ba muy jëflanteeg ndaw sa ca kaw ndaw sa la faatoo Omar Diagne da ngaa laajut lieutenant Chaudié bi ñu créé l'AOF par décret du 16 juin moom la ñu fal gouverneur général bu AOF mu yeexe ñëw ñu jël Louis Guillaume Moutet. juddoo Marseille juróom-ñaari fan ci weeru octobre 1857 ñu fal ko gouverneuru Sénégal moom moo njëkk a ñëw moo wool woon sëriñ ba le 5 septembre 1895 ñu jël ab décision ni dañ koy génn yóbbu ko Gabon moom sunu borom xaarewu ko sawaraw àllaaxira at mi sëriñ bi ñibbisee en 1902 le 8 mai 1902 moo doon gouverneuru Saint-Pierre bokkoon ci Ilieu doon barab bopp milliardaires yi ñoo fa daan daje muy màkkay may sa tenn di noos juróom-ñetti fan ci weeru mai yoor yoorub alxemes la wool woon sëriñ Touba ci biiroo ba ca Ndar yoor yoorub alxemes juróom-ñetti fan ci weeru mai la sunu borom ubbi montagne pele ma tiimoon dëkk ba beteex ba sotteeku ci biir dëkk ba ñaar fukki junniy nit ak juróom-ñett ña ko dëkke woon kenn amu ci bàmmeel Omar Diagne ñooñu la ëppoon ay moyens ñooñu doon xeex sëriñ bi l'administrateur maanaam le le euh, lieutenant Chaudié moo génne ex ba Jolof sambalaw ba na ndax li mu jébbal woon sëriñ Tuubaa yóbbu ko Gabon fièvre jaune moo fi am muy ŋas mu daw dem France ñu dàq ko ni ko da nga def abandon de poste muy taxawaalu ba nomu faatoo le directeur des affaires politiques Merlin mi nga xamante ni moo bindoon rapport ci le 29 août 1895 un jeudi ba jeudi ba see di le 5 septembre ñu wootee conseil privé ba ca bureau ba ca Ndar mu ñëw liir rapport ba mu bindoon sàkku ni sëñ bi dañ ko yóbbu Gabon en 1935 la ñu jël aw ñam def ca tooke poson ko am ku ñu bëggoon a éliminer physiquement fay nit jox ko ko mu jox ko ko mu dem jaawale ko jox ko. gouverneur Merlin mu lekk ñam wa loolaa ko rey mu Musaylamatal Kazaab Diagne xanaa laajoo l'administrateur de Saint-Louis le clerc mi doon jël ci sëñ bi ànd ak Doudou Mbaye fan la mujj Soudan ca Mali di fontoo soudanais ñu kortu ko ba bu demee àll ba wàññee ko di ko jëfandikoo ci benn ma euh, euh, néeg bu ñu abandonné lañ ko fekk mu faatu ba décomposé wu ba décomposé wu nëpp foofu la mujj damay bañ a guddal mais damay wax Omar Diagne ni ko ñooñaa la ëppoon ay moyen waaye ba ñu noonoon Serigne Touba fii la ñu mujj kon liñ la wax boo tuubul addinaa ngi sa kanam mu am nag ñuy koy jéem a défendre di jéem a ànd ak moom ma bëgg am lu ma bëgg a wax képp koo xamante ni leer na ma ni yaa ngi défendre mu Musaylamatal Kazaab Jaañ wala yaa ngi ànd ak moom bàyyi naa la àddina bàyyi naa la àllaaxira yàlla bu nu gisanteeti ci àddina yàlla bu nu gisanteeti ci àllaaxira ak koo man di doon nag laa wax ñi ngi koy layal naan lu tax ñu nekk ba tey wax ju mu waxoon 2015 2018 2000 mais loolu wax ju yàqu la génocide bi amoon Rwanda c'était en 1994 ren la ci fanweeri at mais ñi ca laaloon ba léegi ñu ngi leen di jàpp en Europe di leen tëj lan moo tax tubaab di wax naan X a été rattrapé par son passé yow bu fekkonte ni da ngaa rey ni daw fukki at nga dellu si dañ naan loolu jàll na buñ ko àtte Omar Diagne wax ji mu wax le 31 août la ko def conférence publique ba mu doon def ni mbindum sëñ Touba baaxut ak mbindum mag ñi dañ ko war a réparer loolu lañ jël bi ñuy déposé plainte ñuy dem jëli ni leen moo fi waxoon lii kon lu tax ngeen jekki ba léegi lu tax xeexule noonu nag moom borom nguul yi dafa naa moom bokku ci amut benn sénégalais 2018 ak léegi bu umpale sama diggante ak Moussaïla Matel Kassab Diagne ñaata yoon la ko sama nguul wi dal waaye mbaam xamul gafaka kon yéen ñi may jéem a naan ah, sëñ Mbaye yow bu ñu la bu ñu la influencé eh, eh, politiciens yi eh, lii lii ne ma ni bàyyi bu leen ma fontoo man dama wër ba dajal dama nekk ci yoon wi ñu di ma ci wax ngóor si ma dem ba di ci dégg góor gi dem ba am ci ngóor si jël ko dugalaat ko ci yoon wi kon dootuma gone kenn ci yoon wi man duma nit ku ñuy influencé ba may jóg di xeex ak Omar Diagne yàgg na te jàpp naa ni nguur wi dal na fi ñu nekk ci biir ñu nekk ñu dul murit ñu defe nii ñoom laa koy yemale mais ñi nekk ci yoon yi ba ñu jógee nguur wi dal na leen kon li sëriñ bi waxoon rek ngir ba may guddal nun daal li nu dajale mooy Musaylama Musaylamatal Kazaab Jaañ ab citoyen sénégalais la tooñ na dañuy ñaan yoon ñu def li war ci Musaylama moomu ndax ab communauté la tooñ li sëñ Cheikh su fay wax fii communauté mouride bu ñu fett su woon mu dee waaye ñun defuñu loolu dañuy wax bërëb bi attekaay yi muy tribunaux yi atte tooñe tax ñu def leen fi waaw Musaylamatal Kazaab Jaañ dafa tooñu wax naa leen ni ba ma juddoo ba léegi nit ki mën naa bañ sëñ Touba di ko nëbbu waaye ku taxaw ni sëriñ Touba nekkul ci sama xol ci moom laa ko gisee waaye sëñ Touba nekkul ci sa xol nun ñi mu nekk ci sunu xol bàyyeenu ko ñi may wax naan sëñ Touba deesu ko xeexal bu leen ma fontoo man damay reyante ngir sëriñ Touba yéen ñi ma koy wax kuñ ci daan sa mbër ci arène ba doo reer di xeex di toj yëfi jàmm ku sa équipe bu football ñu gañe ko ngay reyante ku ñu tudd sa leader politique nga jóg di reyante ah ki nga xamante ni moo ma gënal sama ndey gënal ma sama baay di sama yaakaar yaakaari tey ak ëllëg maag ñaata million ci ay nit un va nu nit koo xamante ni jaam la bopp ca Adama ak Awa ba nga ni musta libre taxaw di ko fontoo ñu naa ma bul wax maa tey damay wax. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. kon fi may daaneel rek mooy bu dee ci réseaux sociaux yi la ku ci sama ami Facebook ma xam ni dangay da ngay défendre Moussaïlamatal Kassab Diagne jàppal ni tàggoon na lu yóbbal dinaa la bloqué. su fekkee ku ma xam nga wax ma ko verbalement nag dootoo ko dolli ndax gëm-gëmum nit kenn du ko laal demal France ci armée li juif ya nga jël peinture rëdd fa aw rëdd wu gàtt rek wala nga def fa ab tomb boo ko defee ci kaso bi nga jëm ñu bëgg nag di fontoo sëriñ Touba ba noppi naan wala sëñ Touba xeex lu wut sëñ man damay yor sama ngóol di xeex ngir Serigne Touba nee naa leen. ñiy wax naan sëñ Abdoulaye newoon na sëñ Touba kenn du ko xeexal ña taxoon sëñ Abdoulaye di ca wax man mii ca laa bokk dañoo nekk Paris Paris journal bu ñuy wax Paris Match un journaliste bu ñuy wax Guy Lartigui def ab article wax ni adieu c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme ñi fi rëy làmmiñ booba dañoo mën a génn dem Ndakaaru sax nu dajee Cheikh Assou Abdoulaye Dieye ñoo ngi amoon ab association bu ñu tuddee woon mouvement islamique des mourides d'Europe nuy waajal ab manifestation foofu Paris nu laaj ko ndigal sëñ Abdoulaye danoon nu wax ni dem leen manifeste ji Paris circonstance ñam doon waxee la kon ñi may wax loolu man la ña taxoon sëñ Abdoulaye di wax ca laa bokkoon waaye sëñ Abdoulaye ca même at ma ba muy tere tere yi Touba daf ni war may Touba sama bakkan laa ci teg bokk yi sëñ laat bu tegee bakkanam ci war may Touba nun du ñu teg suñu bakkan ci war may borom Touba waaye buñ nu fontoo bu leen nu fontoo waaye yéene kan maa ngi di guddal mais mu gudd mu gudd mu gàtt daal mag mu taxaw naan maa tey mi ngi nii maa tey maa ko def parce que damaa gis ñu naan waaw yow sëñ mbay xam nga yow ci sëñ bi lañ la xamoon yow gis nga bu la politiciens yi mënu ñun dañoo politiser ñun amuñu problème ak président de la république amuñu problème ak premier ministre ndax ñoom waxuñu ki wax c'est un citoyen sénégalais il n'est ni président nii premier ministre ni ministre avec portefeuille alors bu waxee duñ ko saafara chiffres yi lañ koy def li wër daal mooy le ministre de la justice le procureur ñoo ngi lay ñaan nga auto saisir ci mbirum Omar Diagne mii nun duñ fi taxaw mukk nan dàq leen Omar Diagne amuñu droit wax ko koo xam ne ba mu bañ muy wax falaguñ ko boo ko dàqee mu delluwaat di wax kon nun li ñuy lekk raame mooy la justice maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla na ngeen fi daje ak ngërëmul borom daarul mooti yéen ñi fi teew yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu